mbokkeek euh, xarit yi yenn safoo di topp ay programme leeral TV ngir di fi taataane ay xibaar maa ngi leen di nuyu di leen dalal ak jàmm ci xibaaru juróom-ñetti waxtu yi lee li ci nar gën a fës ñu nar ko faram-fàccee ci bile jotaay dina ci bokk euh, gaz ba nga xamante ni daal dinay explosé fële ca euh, Derklé loole nag daal di jural juróomi doomi aadama jamono ji nag ñoo ci daal di ñàkk seen ak bakkan kenn ki nekk kilifa yi kër ga di Ibrahima Diagne moom nag atam tolloon ci 50 ans niki bi ñu koy rawale ca l'hôpital nag la daal di eh, ñàkk bakkanam loolee waral ñu daal di def jàngat bu yaatoo yaatu ci bile eh, journal ngir daal di càmbar bu baax a baax naka la ñuy jëfandikoo gaz yi ci biir kër yi waaye itam naka la ñuy daal di eh, jéem a fàggandikoo ci jéeye yooyee bu amee ci biir kër yi reportage bu am solo boobu dañ ko lu ci bile jotaay lu mooy loolee itam fële ca diwaanu Thiès association wala mbootaay ba nga xamante ni moo yëngu ci wàllum former ak encadrer foofee ca Thiès daal di xamante ni seen at toll na ci juróom jàpp fukk ak ñaar ci ay ndaw ngir daal di leen di tàggataat bu baax a baax jëm ci ni ñuy jëfandikoo l'internet bi waaye tam jëm ci daal di leen di sàmmaat bu baax a baax ci naka lañu ñu war a mën a amee ab taxawaay fii ci réewum Sénégal lu mooy loolee fële ca diwaanu Saint-Louis itam ña nga xamante ni ñooy yëngu ci wàllum euh, mbayum ceeb bi ñoom itam ñu ngi wax ni ñu ngi ci ay euh, jafe-jafe bu baax a baax euh, ci seen wàllu métier li ko waral bokk na ci coppite bi am ci climat bi loolee nag daal dinay waral jamono ji ndaw yu bari yu nekk foofee ci seen diwaan ba di génn ci diwaan ba wutali fële ca biti réew dañu teewlu loolee itam ci bile jotaay lu mooy loole xibaar yi biti réew toftal ci xibaar yi tàggat yaram bi xibaar yi buur ñu léegi léegi ci faram fàcce gi. mangook mbokk yi ginnaaw bi ma leen nuyoo di leen dalalaat bu baax a baax ci jotaayu xibaar yile ni ma leen ko waxee ca bopp ba gaz ba nga xamante ni explosé na ni ki barki démb fële ca diwaanu Derklé loole nag daal di jural ay doomi aadama yoo xamante ni jot nañ cee ñàkk seen ab bakkan ni ki tey nag juróomi doomi aadama nag la ñu daal di wëññi ni ñoo mujjee euh, ñàkk seen bakkan kenn ka nekk kilifay kër ga di wuyoo ci turu Ibrahima Diagne moom nag daal di génn àdduna ginnaaw bi nga bu baax a baax ba ñu rawalee ko fële ca l'hôpital mu jëntër ga fa la mujjee daal di euh, faatoo loole nag daal di waral ñu daal di def ab taxaw seetlu bu baax a baax euh, jëm ci ni ñuy jëfandikoo gaz yi ci biir euh, kër yi rawatina ñi nga xamante ni dañuy faral di fanaanoo gaz yi ci biir néeg yi loolee itam askan wi daal di nañ ci àddu bu baax a baax rawatina ña nga xamante ni ñoo nekk fële ca diwaanu Ngor ñu dem sew teewlu leen ak reportage bu am solo bi nga xamante ni Marème Soda Ndiaye moo ñu ko defal tiital nañu bari moo tax war nañoo xoolaat bu baax niñ koy jëfandikoo. gaz moom wóorul moom bu boo ko yoree sa kër da nga war a am sécurité waxtuma kër yi léegi dañu yor ay xale te xale yi moom dañoo sob bu ñu nekkee si kër yi boo leen bàyyiwulee xel rek ñu def loo xamante ne lii ah yow defu bàyyiwoo si woon xel waaw. dafa nekk danger même boo ko tëjee sax. waa gaz yi nuyu boson bi tëjee baaxul xam nga aussi suñu yaay yàgg nañu toog si gaz mais aussi tamit bu fekkee ne booy taal gaz gaz dafa sensible. Euh, gaz boo ko ko fayul sax boo étincelle lamp bi sax mën na mën na mën na taal kër gi c'est dangereux. waa ji jàpp na ni ñenn si jigéen ñi tayal gi la war a moytu. man boo taalee boo pare ngay xool yëpp ndax tëju na ndax lii lii na ndax lii lii na alors que ñu dem defal ko seen bopp doom diwoo fayal ma lii diwoo fayal ma lii diwoo gi la war a bàyyi. leneen lu garaaw mooy ñi fanaan ak seen i gaz. man damay gis ay jaboot yoo xam ne dañuy jël sa gaz tëj ko seen biir kër seen biir néeg. bu ñu ko tegee tëj ko caabi fanaanoo sa gaz si biir néeg xam nga loolu moo gën a nekk danger man gaz moom duma ko fanaanoo sama biir néeg gaz moom si biti sa waañ wa gaz bi kalaate aljuma bi weesu fële ca Derklé moo ne ci làmmiñ yëpp fi mu ne nii bilan bi sax yokk na gannaaw ba Sagar Diouf Janko Diagne Serigne Saliou Diouf ak Khadim Diagne keneen ñàkk na bakkanam muy juróom mangook ci jamono ba ñuy def boobi la reportage juróomi doomi aadama ñëw ci ñàkkoon seen bakkan waaye ñu jàpp ni niki sànq itam keneen daal dina ci ñàkk bakkanam ci boobi la explosion bu euh, fële ca euh, Derklé jamono ji ci euh, juróom benn la ñu toll ci six personnes ka nga xamante ni moo doon liggéey ca kër ga di mindaan ba nekk fa ca biir kër ga nag moo daal di wàcc liggéey moom itam ginnaaw bi mu ci jëlee ay gaañu gaañu yu métti métti ci bile lakk-lakk loolee nag ki nga xamante ni nag mooy njiital réew Sall daal dina ci porox ndoolu ngir di leen masawu bu baax a baax famille boobee nga xamante ni jamono ji ñu ngi ci njàqare bu baax a baax ndax ñoom ñëw ñee ñëpp uh, ca benn kër ga lañu doon yeewoo daal di ñàkk seen bakkan ginnaaw bi fa uh, gaz boobee daal di explosé ba tey dañuy desandi ci mbiral gaz boobee wala mbiral gaz yi nga xamante ni dañuy faral di nemmeeku muy uh, andi ay jéye ci biir uh, kër yi loolee waral ñu daal di def ab taxaw seetlu daal di dem ci koo xamante ni xam màcc na ci bu baax a baax ngir mu daal di ñuy uh, dégtal naka la ñu war a mën a amee ab taxawaay jéye bu amee ci biir kër yi ak gaz yi nga xamante ni day faral di exploser ñu dem teewlu ki nga xamante ni xam-xamam màcc na jëm ci wàllu wile di wuyoo ci turu amadu Kanar Diop dikkaat na ci bu baax a baax ak suñu ndaw la nga xamante ni moo doon taataan ay euh, waxam ak euh, Marème Soda Ndiaye. naka la ñu mën a safara ci biir kër yi waaw bi ci njëkk mooy di moytu du tox ci kaw lal di tox ci biir néeg beneen bi mooy ci biir kër gi yëpp ci waañeeg yëpp diwlin bu saas buñ ci sotti ndox wala cin buy tàkk buñ ci sotti ndox nañ moytu it ànd cuuraay ak lépp loo xam ne ni day jege safara nañ ko moytule li nga xam ne combustible la maanaam mën naa tàkk te nag installation électrique yi maanaam courant bi dañ koy faral di vérifier ak surtout bouteille de gaz di xool ndax bouteille de gas yi mu ngi am fuite wala amul fuite ak bec bi ñuy jël baax na wala baaxul bu ñuy teg ci waañ bi nag bouteille gaz yi nañ ko sorile ak fourneau yi donc bu ñu jegee parce que safara bi ci fourneau bi bu yànj bi bu laalee bu jëndee bouteille de gaz bi mën naa yokk pression bi bu tàngee exploser loolu soo ko mënul te fay nag nga toog ci néeg bi euh, jël tëj ko boo tëjee néeg ak fenêtre bi dana tax safara bi ak euh, saxaar si yéex fa agsi jël nag morceau bu tooy def ko ci suufu bunt bi pour mu étanche ba safara wala saxaar bañ fa àgg du fekkente ne nag kër gi maanaam étage la nga nekk ca kaw safara bi nekk ci suuf maanaam nga nekk troisième wala quatrième étage safara bi nekk deuxième étage dañ ne du fekkente ne escalier yi euh, mënee su cee jaar ndax am na saxaar tëjal bunt yi nga ci fenêtre bi tàllal sa loxo pour ñu xam nga fa bu fekkente ne nag safara bi dafa nekk ci kaw yow nga nekk ci rez de bi wala premier étage safara bi nekk ci quatrième wala cinquième étage da ngay jéem a xool làmp bunt bi ndax tàng na bu tàngee nga xam ne safara bi jege na bu tàngul nag ubbi ko ndànk te bañ a dugal sa kanam maintenant bu fekkente ne nag am na koo xam ne nii dafa safara bi da ko laal dafa laal létt yi maanaam karaw gi wala mu laal yére yi dañuy jël serviette wala mbàjj wala euh, lu xaw a diis ñu muur ko ko laxas ko ko ko di ko jaajëfalaat bu baax a baax ci eh, ni nga xamante ni noonu la ñu war a mën a taxawee niki bu gaz explosé ci biir eh, kër yi ñu àddu wax ci leneen fële ca diwaanu eh, Thiès itam ñi nga xamante ni ñooy association bi dajale ñi nga xamante ni ñooy encadreur wala ay formateur fële ca région bu Thiès ñoom itam daal dina ñuy dajale ndaw yu baree bari ngir daal di leen di tàggataat bu baax a baax li jëm ci wàllu internet bi waaye tam li jëm ci wàllum tàggatu bi rawatina li jëm ci wàllu caadawu réew mi mi ngir ndaw ñi gën cee am euh, ab euh, bàyyi xel loolee itam daal dinañ ci dikk bu baax a baax tàggataat ndaw ñi nga xamante ni seen at toll na ci juróom jàpp euh, fukk ak ñaar ngir ñu gën a am taxawaay bu am solo fii ci biir réew mi ñu dem teewlu leen ak ki nga xamante ni moo yor seen kàddu wala seen ak njiit di Oumou Kalsoum Ndiaye ci micro suñu ndaw Oumar njaay xamante dafa jóge ci kaw ci ministre bi ci ministre de la jeunesse ministre bi jóge jëlee ko ci président publique parce que li waral loolu mooy te thème bi def du ren ji rek lañ ko def defoon nañ ko daaw indiwaat ko ren kon day wane ne dafa nekk thème bu am solo thème bu ñor suñu njiitu réew mi njiitu réew mi njiit euh, dëkk bi ndax lan parce que dañoo gis ne euh, internet euh, réseaux sociaux yi ñu ngi ñu ngi ñu ngi law ñu ngi dem ba xale yi nga xamante ne rek yaa ngi ci connexion yaa ngi ci internet ñu ci bari xamuñu lan moo ci lan moo ci yàqu-yàqu bi lan moo ci baax baax bi léegi ñun suñu liggéey ak thème bi mooy dañoo war a yee xale yi ubbi seen bët wan leen lépp lu ci ñuul lépp lu ci lëndamtu ñu jëm cee ubbil xale yi wan leen yoon bii mooy yoon bu baax bi yoon bii moo yoon musiba bi bu ñu jógee foofu dañuy dem fële ca diwaanu euh, Saint-Louis foofee nga xamante ni baykat yi yëngu ci wàllum euh, mbayum euh, ceeb bi ñoom itam ñu ngi naqarlu bu baax a baax jafe-jafe yi nga xamante ni ñu ngi koy jot a am ci seen ak métier loolee nag li ko waral ñu jàpp ne bokk na ci coppite bi am ci climat bi loolee waral seen ak liggéey di am ay jafe bu baax a baax loolee sax jàpp nañ ni moo waral ndaw yu bari ya nga xamante ni ñooy yeewoo ca diwaan ba rawatina ca jawaar mi nga xamante ni foofu la féetee ñu ngi daal di génn ca gox ba di wutali fee ci diwaanu euh, biti réew ñoom nag ñu ngi euh, woo ñëpp ñi nga xamante ni ñooy kilifa yi réew mi ngir ñu gën leen a bàyyi xel gën a joyante bu baax a baax seen ak euh, métier ngir ñu gën cee mën a gis seen bopp bu baax a baax ñu dem teewlu leen ak suñu ndaw ya nga xamante ni ñoo ñu teewal fële ca diwaanu Saint-Louis di Adama Sall ak El Hadj nit ñi am ay jafe-jafe lool ci mbay mi képp ku nga xam ne am nga chance ba am nga chance ce taux de sinistre c'est presque euh, soixante neuf virgule trente deux pour cent la loolu kon li nga doon mënal sa bopp dootoo ko mën li nga doon mënal sa njaboot dootoo ko mën et ñoo ngi jëm ci euh, ay événements de société par exemple euh, gàmmu magal Tuba weesu na mais gàmmu Tiwaawan na ngi ñëw école ngay ubbi yeneen a ngi ñëw yeneen a ngi ñëw te parent yi dañu war a jànkoonteeg loolu pour régler problème mu élèves yi régler problème mu étudiants yi donc loolu ay jafe-jafe la te ginnaaw yàlla ak yonent bu wéyee mbay mi dong la ñu yaakaar kon mbay mi bu sooxee nit ñi dañu am jafe-jafe tey jii am na kër yu nga xam ne dañuy jënd ceeb pour pour pour lu ñu lekk c'est un paradoxal am boo ko gisul boo ko gisul ak bët doo ko doo xel du ko nangu parce que dañuy jàpp ni fi ñuy béyee ceeb dara manqué foofu mais ren di en tout cas lépp manqué na. dañu am problème ñun jigéen ñi. ñoo comme ni ma la ko waxee ñoo war togg ñoo war yàq amuñu ñu togg waaye ñun jigéen ñi woo ñoo war toppatoo xale yi école la ngi tijji seen fourniture école la ngi tijji dañu am suñu doom yoo xam ne ay étudiant lañu am ñoo xamante ni dañuy jàngi Kaolack ñii di jàngi Dakar ñii kees ñu war leen préparer seen ouverture te yore wuñu dara kon tey ñoo ngi woo son son son excellence monsieur le président de la république monsieur Macky Sall ñoo ngi koy woo moom mooy tête de liste ak ministre yëpp comme ni ko président waxee ñoo ngi woo ñëpp ñu ñëw jàppale ok bu ñu fa jógee dañuy dem fële ca diwaanu euh, Louga foofee nga xamante ni euh, association yi nga xamante ni moo ëmb imaam yeeg prédicateur u Sénégal fële ca diwaanu Louga nag daal di nañuy pencoo ñoom itam doon naqarloo bu baax a baax kàddu yi nga xamante ni Ahmed Cissé daal dina ko yëkkati jëm ci diine l'islam waaye itam jëm ci euh, kàdduk yàlla loolee nag daal dinañu koy amal ni ki tey doon fësal seen ab naqar ci kàddu yi nga xamante ni jot na ko yëkkati ca loolee nag ki nga xamante ni mooy imam Euh, Mamadou Lo daal dina yëkkati ay kàddu di wax ni euh, kilifay réew mi dañoo war a taxaw bu baax a baax ngir nu ñuy seggaatee ñi nga xamante ni ñoom la ñuy euh, invité ci plateau yi waaye tam gën a xoolaat site internet yi seen ab liggéey yi nga xamante ni ñu ngi koy def ci biir réew mi ñu dem teewlu leen ak suñu ndaw Babacar Diop ci micro Babacar Diop ki nga xamante ni mooy imam Alioune Badara Wade ñaaw jooju génne na ko muy Ahmed woote bi nag mooy euh, dañ ko tënk ci ay tomb benn bi mooy ñuy dénoncer li nga xam ni def na ko ci wax yu ñaaw jëmee ko ci alquran jëmee ko ci sunu borom subhanahu wa taala. ñuy woo euh, sénégalais yépp di leen xamal ni du bii la njëkke du ñaareelu yoonam du ñetteelu yoonam muy def yu mel nii maanaam da cee sax da koy def di ko defaat euh, beneen tomb bi moo di ne ñu ngi woo tamit sunu mbokki gambien yi di leen xamal ni mbir mi. du mbirum Sénégal ak an ak euh, Ahmed Cissé mbirum Ahmed Cissé la ak diine l'islam association bi dana dajaloo ak yeneen association yi di xamal presse yi ne maanaam mboolem koo xam ne si yaa ngi tas xabaar ne ñi ngi pare pour képp koo xam ne si itam génneeti nga ku mel nii ak ku mu mën a doon ak presse bu mu mën a doon ak télévision bu mu mën a doon ñi ngi jëm ci sa kaw. nga xam ni euh, président Macky Sall moo ko jiite ñi ngi koy woo ci mu jël position am ak wax ñu. ak jëf li nga xam ne moom la ci yoon wax. Euh, ñi ngi koy adressé ministre de l' intérieur ministre de la justice procureur de la république président de la république ci moom lañ ciy jiital mboolem ko xam ne si mi ngi def yu mel noonu ndax ñun dañ gis taxawaay bi ci war a taxaw dëgg. toujours day am mais dañ dul gis benn taxawaay boo xam dañ naan rek gouvernement bi def na ko ba ci revue de presse yi boo dee xool journal yi du waxuñu ko ci te luñ ci waroon a wax la ñoom ñëpp ñu jàpp ci te xam ne ñu ñëpp ay jullit lañ waaye du mbir moo xam si rek dañ koy bàyyi ak ñenn ñu wax ci suñu biir mu jeexee mu jeex kaneen génnati loolu dootuñu ko nangoon ànd ak mbooleem kilifay dëkk bi yëpp nag jamaat yeeg dawaayir yi daayira tijaan xaadir euh, euh, murid yi ñëpp ñu ngi ànd ak ñun ci ci liggéey bi ba ci euh, jamaatu Ibaadu Rahman ñu ngi ciy euh, fàttaliku di tudd euh, imaam Mouhamed Lo mi nga xam ni waroon naa teew mais dafa am lu ko tënk ba tax. mangook ci diwaanu Louga sax la ñuy daal di euh, desandi ci wàllum euh, politique jigéen ñi nga xamante ni ñoo fari ci Benno Bokk Yaakaar féete ca diwaan ba ñoom itam daal di nañu amal akum ndaje doon euh, waxtaanee li jëm ci wàllu bilan président Macky Sall waaye itam ci tànneef bi nga xamante ni def na ko ngir Amadou Ba daal di leen di jiite ci élection présidentielle yi nga xamante ni moom la ñu dëgmal ñoom nag ñu ngi rafetlu bu baax a baax tànneef bi nga xamante ni njiital réew mi Sall daal dina koy def ci Amadou Ba ñoo bokk ci ñoom ngir ñu daal di gën euh, taxaw temm ngir gën a dooleel ki nga xamante ni mooy euh, Amadou Ba euh, seen ak njiit ñoom ñi nga xamante ni ñoo féete foofee wala responsable APR fële ca Kébémer di wuyoo ci turu Aïssatou Mbène loo ñu dem teewlu ko suñu micro ndaw Babacar Diop. candidat président Macky Sall naa mënoon a nekk candidat mais bëgg jàmm am ci réew bi ak bañ fitna moo tax mu ne bàyyi naa. tànn ki ngeen xam ne ngeen bëgg mu jiite leen ma jàppale leen ci tànneef boobu ndax moom aussi kenn gënu ko xam ñi fi nekk pour ni leen kii bu ngeen ko fi tegee dina mën a yeggale liggéey bi ma tàmbale ndax président daf fi def liggéey boo xam ne bu ñu ko doon lim duñ fi jóge sur tous les plans santé wérgu yaram xëyu ndaw yi njàng mi financement wu jigéen yi bàyyiwul dara ñun jigéen commune Kébémer nag ak département bi yëpp dañuy delloo njukkal président Macky Sall ndax président dafa am cër bu mag bu mu jox jigéen ñi dafa jox jigéen ñi promotion jox leen ay poste de responsabilité bu demee ba ni nan yokk autonomisation des femmes dafa jox jigéen cër kon kooku tey jii bu nee dinaa bàyyi teg keneen ci bopp réew mi ku mu ñu tànnal rek loolu lañ ko waxoon bi ñu fi dajee bay passé ni ko président koo joxoñ rek ñu ne moom la tànn na joxoñ na te tànn bi du tànnee fu boppam dafa woo ñëpp ci waxtaan kan ngeen yaakaar ni moo gën ñu toog waxtaan Moustapha Niass dirigé euh, conférence boobu ba ñu ni Amadou Ba moo génn ñeneen ñi nga xam ne génnuñu ñëpp mënuñu jiite mais ñu ngi ñaan ñooñu aussi ñoom ñëpp ñu xam ni bu leen Sénégal ñoree dañu war a rangé wu ci dernier le choix ñun ñëpp ñu ànd liggéey Sénégal ñun de comme président lañ doon mu joxoñ kenn te joxoñ na kenn ñun ñoo ngi engagé wu ànd ak kooku liggéey pour fal ko dès le premier tour 2024 Mangok euh, Guy Marius Sagna mën na nekk euh, plan B wu euh, Pastef wala ex Pastef waaye loolee nag la askan wi di faral di wax yenn saay waaye ki nga xamante ni nag mooy Cheikh Thioro Mbacké nekk responsable politique fële diwaanu Mbacké fare ci Pastef moom itam jàpp na ni seen candidat mooy Ousmane Sonko amuñu benn yoon ab plan B bu kenn waxati ni ki nga xamante ni mooy Guy Marius Sagna mënees na ko wuutu ci li nga xamante ni mooy boppal Pastef moom nag jàpp na ni ki nga xamante ni mooy usmaan Sonko dinañ ko gën a taxaw bu baax a baax ngir mu gën a jëmmal li nga xamante ni mooy seen ak euh, coalition wala seen ak euh, parti boobee euh, di Pastef ñu jàpp ni Ousmane Sonko ni ki ay weer a ngi nii mu ngi fële ca kaso bu Sébikotane ginnaaw bi nga xamante ni itam teg nañ ko loxo loole sax lañuy ñuy daal di jóge daal di dem ci suñu ñaaleelu pàcc yi nga xamante ni moo ñu yóbbu ci xibaar yi bi ci réew mangook xibaari bi ci réew yi dañuy dem fële ca diwaanu euh, Rwanda foofe nga xamante ni seen ak njiit di euh, Paul euh, Kagame nji njiital réew ma daal dinay amal entretien bu am solo ak suñu naataangoo yi di waa Jeune mu dikkaat bu baax a baax ci mbébétam ci biir Rwanda waaye tam wax ne dina bokk ci ñi nga xamante ni dinañu sampaat seen ndënd ngir laajaat Rwanda ndax itam li nga xamante ni mooy yéeneem ak mbébétam ci Rwanda jeexagul fas yéene na ko yeggali bu baax a baax bu ñu ko jox joxaatee beneen ab euh, beneen ab mandat ngir mu daal di wéyal bu baax a baax li nga xamante ni mooy mbébétam ci biir euh, réewum Rwanda. ba ñu jógee foofu ñu daal di euh, jëm ci li nga xamante ni mooy assemblée générale bi nga xamante ni moo am fële ca ONU fële ca États-Unis ni ki démb itam waxaat nañ ci bu baax a baax euh, teewaayu euh, président Macky Sall foofee ca États-Unis ci 78e section bu am solo boobee nga xamante ni dajale na fa ay njiitu réew yu bëree bëri rawatina ñi nga xamante ni ñoo féete fii ci Afrique lañ doon laaj nag mooy Niger mi nga xamante ni dafa nekk ci ay guddi gu barsatagul ginnaaw bi nga xamante xamante ni ab coup d'état am na fa loolee nag ñu doon laaj kan moo leen fa war a mën a teewal foofee ca euh, ndaje ba waaye ki nga xamante ni mooy général Abdourahmane yi euh, di euh, président bu junte ba moom nag daal dina fay yebal ki nga xamante ni mooy Yawou Sangaré Bakary mi nga xamante ni itam moom tabboon nañu ko ngir mu daal di leen fay teewal ci ndaje bu am solo bile ginnaaw bi nga xamante ni moom moo nekk li nga xamante ni mooy jëwriñ ji gàlloo lépp lu jëm ci wàllu biti réew foofee foofee ca euh, Niger. bu ñu jógee ca loolu ci xibaar yi euh, bi ci réew yi mbokk yi dañuy daal di euh, ne ca wet rekk daal di dem ci xibaar yi tàggat xibaar yi tàggat yaram dañu koy euh, dooxee ak ñi nga xamante ni ñooy suñu gaynde yu jigéen ñi nga xamante ni fas yéene nañoo amal ab euh, jongante bu am solo euh, fii ak ñaari fan ci loolee nag fas yéene nañoo daje ak waa Mozambique ñoom ñi nga xamante ni fas yéene nañoo jàkkaarloo ak ñoom ci éliminatoire Coupe d'Afrique féminine yi nga xamante ni moom la ñu nar a amal fële ca réewum Maroc ci atum 2024 bi nga xamante ni moom la ñu dëgmal bu ñu sukkandikoo nag ci seen sélectionneur national bi di Mame Moussa euh, Cissé euh, réewum Sénégal ak gaynde yi nga xamante ni ñoo ñu fa nar a teewal jamono ji euh, taxaw nañu temm ak ki tàggatu yu am solo ngir daal di amal match yooyu nga xamante ni ñu ngi leen ci xaar bu baax a baax réewum Sénégal nag ñu jàpp ni dina daje ak waa Mozambique niki ci àjjuma bi waaye ci lundi bi dinañ daal ji dajewaat fii nii ci stade Lat bi nekk fii ci Thiès. mangook loole sax moo fi gën a fës ci xibaar yi euh, tàggat yaram euh, waaye itam gën a fës ci li nga xamante ni moo jëmoon ci wàllu xibaar di leen jaajëfal bu baax a baax yéen ñi nga xamante ni yéen ñu doon euh, bàyyi xel ci leeral di leen jox dig daje bu 21h jotee ci xibaar ci kàllaamay nasaraan ak Fatima Koulibaly jàngeen jëf